ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal Alaaji Sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi ma ngi woon ci annonce bi nga xam ne alxuraan def na ko sallallahu alayhi wa sallam si yëpp di ko siirtu penkook sow bëj gànnaar ak bëj saalum ñépp di ko séentu ñépp di ko séentu maam Cheikh Alxaaj Maalik ne laal leen basang yi te xam ne yéen a ngi bëgg am gan gu kenn musta am te kenn dootu ko am gan googu incha allah bu agsee dana def nam daan def ndax borom bi def na laqad jaa ak kum dana def na mu daan def mooy dugg ci kër yi kër gune xam na sa feebar mu diagnostiqué la bind la ordonnance bu ca waree walla mu jox lay tegtal bu ca waree waaye du opéré du pikiire sallallahu alayhi wa du opérer du pikiire ndax mooy raouf rahim mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam kon fii jamono tollu jamono nga koy séentu jamono nga koy séentu te lépp lu metti jamono ak lu loola mën a doon loola mën na koo faj moom docteur bii di bëgg a ñëw lépp lu mën doon maa anittum moo xam feebaru jikko yu yàqu la moo xam feebaru ñàkk kilifa la moo xam feebaru lu la neex wax la moo xam feebaru économie la moo xam feebaru social la moo xam feebaru yàquk bokk la moo xam feebaru moo xam feebaru moo xam feebaru waaw li yuxrijakum min adulumaati ila nuur sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu toll ci borom bi di annoncé ak ñëwam waaw borom bi di annoncé ak ñëwam waaw sohay bi ma bani yaa rasulallahi salla alayka laahu yaa alamal huda moo tax ñi nga xam ne ñoo bëgg a fexe ba nit ñi xam ko gàcce ngaalaamaa ñoom ndax ñépp a ko war a xam man xamaguma ko ko xam te soppoo ko waaw ku ko xam rek sopp ko te sopp ko mën naa jur topp ko te topp ko day jur texeg àdduna ak texeg àllaaxira waaw sunu borom ne laqad jaakum kon nag docteur baa ngi ñëw te bu ñëwee kër yépp lay dem te genn kër du jóg fekki ko waaw may wax ne bu fekkee kër yépp lay dem na ku ne ubbi sa kër lal say basang waaw lal say basang génne njaboot gi yépp waaw génne njaboot gi génneel soxna su mag si génneel aawo génneel ñaareel ñetteel génneel séet bi gone yu ndaw yi jànq jeeg xéeg yeeg njegemaar yi waxambaane yeeg dor yi na ñépp génn docteur bi ñëw faj leen ndax nuurun mu biinun atan nuural mu biina li irshaadi ibaadi jamian rabbi allahu nuurun mu atan nuural mu li irshaadi li ibaadi <laughs> bàkk mustarshiduuna yi wal mustarshidaati nuurun mubiinun atan nuural mubiina li irshaadil ibaadi jamian ndeysaan li irshaadil ibaadi ci moom ak leer la lim indi ak leer la ñaari leer fu ñu daje ñoom irshaadil ibaadi yomb nuurun waaw mubiinun atan nuural mubiina waaw seetetetet <laughs> ñi ñi dégg balaaxa ak waxinu waxinu arab wax ji neex na ba boo xamul li muy tekki sax wax ji dafa neex nuurun mubiinun atan nuural mubiina li irshaadi li ibaadi kon al ibaadu bu nu ko soxlaa wala boog buñ ko mayee nopp la taxoon la taxoon xadir jóg moom mu indi leen ko ndax xadir jóg na wut yóbbal wut àndandoo dox ba toqi waaw xadir xadir jóg na wutub yóbbal wut àndandoo dox ba toqi dox ba toqi door a gis génn góor ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda rushda waaw kii nag moom ne bu leen bu leen wutub yóbbal bu dox ba toqi bu leen génn seen kër laqad jaakum waaw docteur bi dana ñëw ci seen kër yi dana ñëw ci seen pénc bi dana ñëw ci entreprise yi dana ñëw ci société yi waaw fépp lay ñëw te ñépp a ko soxla ñépp a ko soxla xam naa noonu lim nu indil nun péncum Sénégal su njàngale mi doxoon yu baree bare jóg fi malheureusement nee nañ ñun sopp nañ ko waaye nag sopp gi firndil ko yombut moom Cheikh Alxaaj Maalik ne bu amee lu koy jaaxal mooy sopp naa yonent bi waaye duma ko topp sopp naa ko waaye duma ko topp waaw bu ñëwee ci village da ngeen gis ne euh, nit dana ne moom yonent bi la gëm te du sol lu jot bu dee jigéen du sol lu fatt du sol lu yaatu te nee moom la gëm moom la bëgg du muuru du musóoru mukk du lekke ndeyjoor du nangoo ndeyjoor waaw lu ko neex a wax ci làmmiñam te yonent bi la bëgg sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi wax naa démb ne aay ji nga xam ne mooy annoncé ñëw gi moo mujj ñëw bi ñuy dajale alxuraan te moo mujj ci suratu tawba suratu tawba sallallahu alayhi wa sallam borom bi nag bi mu ne laqad jaakum ñëw na waaw ñëw na ñëw na ba noppi ñëw na ba noppi kan moo ñëw rasulun ab yonent rasulun ab docteur docteur bi kulli maana kalimati docteur docteur ab fajkat lay doon fajkat bu comprendre bu laabiir bu ñeme maladie te doo leen seexlu docteur docteur da daan dalal xelum ki muy faj bashiran wa nadira docteur moo tax kenn daawul ñëw euh, hôpital di ko xaar Hmm. kenn du ñëw ci dispensaire bi di ko xaar kenn du ñëw ci clinique bi clinique bi di ko xaar docteur daawuñu ko xaar ndax ki feebar di seeti docteur fekk ko fa moo ko gën a jig ci docteur bi fekk ko fi fekk fi docteur bi moo ko gën a jig mu tax docteur bi laxat jaakum moom daf lay fekk si docteur daf daan euh, xër ci malade yi du seexlu malade euh, li ëpp ci ñun bi ñuy gone <laughs> seen yaay manq na seeni baqata te ku dul yaay du manq baqatay doom ma wax la ko tey da koy seexlu la docteur laqad jaakum rasulun ab docteur docteur bi mën a faj su masaana xëy si nekk bureau malade yi xëy si ku ne ana docteur ñu la mu ngi ci biir day summeeku soxol tàmbalee féex ba docteur gis ne génn ci maladie jot na il est huit heures di génn tiim tiim maladie maladie yëpp gis ko waaw maladie yépp gis ko mu sol blouse bu weex gàll ya muy gàll ca nopp ya génn jàkkaarlook maladie nuyoonteeg ñoom saafoonteeg ñoom dalal seen xel te bañ faa tudd dee cëy waaw waaw sunu mbokkum daarama euh, Samsudin Seybatul di juuf waaw cëy mbal mu daan def bu xëyee ñi daan faju si fa lañ koy fekk ndax day jóge jàkk ji rek ñëw toog day jóge jàkk ji rek ñëw toog waaye huit heures zéro minute mu génn tiim maladie waaw wax jooju ma doon wax maladie am na ci koo xam ne daanaka soixante pour cent yi feebaram de daal di dañ <laughs> waaw moo tax ab docteur wërte ñàng docteur wërte ñàng moo tax subhaanahu wa taala ne rasulun waaw rasulun laqad jaakum kum ji day tegtale ne ñépp a bokk fu waay feebare rek ak xeeti feebar bu am rek docteur bi njëw na pour faj loolu ko defee bu waxee ba noppi door a xool nag maladie kan moo fi jiitu kan moo fi jiitu bu dee ay ticket la joxe mu woo ticket numéro un bu noppee ka ca topp topp ca bu noppee ka topp topp ca waaw sunu kër gi jëppal li muy ñàkk ñàkk solo <laughs> bu ñu xëyee dañuy génne sées yi ci biti su fekkee wàcc naa fekk aw nit ma ne kan moo jiitu waaw kan moo jiitu waaye docteur tam loolu lañ ko sant ndax yaatu dënn googu dafay assurer maladie walla dafa am lum leen di wàññil ci seen seen seen maladie moo tax alayhi salaatu borom bi tudde ko rasulun jàngalekat yi tudde ko ab docteur jàngalekat yi tudde ko ab docteur waaw rasulun min anfusikum waaw xaj Ibrahima Saaxu moo ko daan wax min anfusikum daal di min anfasikum daal di firi ñaar yëpp waaw alxaj Ibrahima Saaxu rahmatullahi ci bu ne min anfusikum mu ne doktoor bi ci yéen la bokk bu ne min anfasikum docteur bi ci ñi gën ci yéen la bokk gënu nag nun ñëpp waaw moo tax ñaar yëpp la daan maas moom ci riwaaya moom xaaj Ibrahima Sakho gis nga baatu min anfusikum ci yéen la bokk doktooru gan daa bokkut ak doktoor bu dëkk doktoor bu dëkk li muy xam ci xeeti feebar yi nga xam ne moo ne cim réewum bokkut ak doktoor boo xam gan la fa gis nga ci julli jumaa buñ amoon gan gu jóge Nouakchott Euh, te raw ca dëkk ba nekk imaamu ratib ja àjjuma jot duñ ko jiital duñ ko jiital de doonte kon moo raw ca dëkk ba bu mu nekk raw ci suñ dëkk bi nu nekk nekk fa imaamu ratib waaw du tax nu jiital ko hmm, déedéet du tax nu jiital ko waaw ne eh, sëñ kër si alxalifa bokk na ci njàng mi ñuy njànge ci ay jëfam dañoo masa daje ci jenn jumaa joo xam dañ koy inauguré waaw moom nag waa jumaa ja jàpp ne moo ko war jiite ñu def waxtaan wi ba Euh, nodd ak xam jot mu laajte ilimaan ñu ne ko ilimaan a ngi nii mu ne ko doxal nu jiit doxal nu julli ñépp tee seen gémmiñ imaam Salman mu ne waaw kay nit ñi dañ ma bëggoon a booleeg yow <laughs> nit ñi dañ ma bëggoon a booleeg yow ma nekk gan jógi Tiwaawan ñëw jiit la te yépp yëpp weer yëpp at yëpp yaa fi jiite kon nag yaa war a dox nu julli waaw ñëpp jàng ca note ko kon li tax ñu ne ko doo jiite moom gan gi jóge Mauritanie Nouakchott mooy gan la benn ñaareel ba gan xutbaam bokkut ak waaraateem ndax jullig jumaa du du du waaraate julli déedéet dañuy xutba xutba boo laajee ilimaan yeeg aima yi xutba dafay am actualité wax ci pénc bi waaw tabarkal sunu sëriñ bee ci Tuubaa a cheikh Mouhamad Arafaayi waaw Arafaayi xutba yi muy xutba day doon actualité suñuy jub événement mbaa ñu ne ca mu wax ca lañ ca mën a jànge bu dee sëriñ bi la mu wax ca lañ ca jànge barki démb noo ngi dégg muy wax ci ki ñëwoon ca sëriñ ba di jàmmanteeg moom te lu mu ko wax sëriñ ba jàngal ko ci jàngal nu ca na def mbaa ngi am jàmm naka njaboot gi naka jigéen ñi <laughs> lu mu ko wax rek sëñ bi jàngal ko ca loo xam ne jàngal nu ko ca mu ne ah, yii de mant naa roy waaw kon laqad jaakum rasulun min anfusikum docteur bi ci yéen la bokk gis nga docteur Moussa Gaye ma la nekk Albert Royer bokkut ak bu fi docteur sàngam ñëwoon jóge Congo walla mu jóge fi mu ñëw fi jóge almalakatul arabi saoudia walla mu ñëw jóge Japon mën nañoo faj de waaye boo ne la woon jàngoroy kajoor docteur bi taxaw ne la c'est jàngoroy kajoor ba ne ko toppum siti <laughs> mu laaj la ko waaye boo xam Moussa Gaye jàngoroy kajoor mu ne la mooy feebar sàngam ci feebar yi ci xeeti feebar yi nga ne ko toppum siti mooy la mooy feebar sàngam nga ne ko ŋas mooy la mooy feebar sàngam nga ne ko njàmbataan muy la mooy feebar sàngam nga ne ko xuréet muy la mooy feebar sàngam lu tax parce que Moussa Gaye min anfusikum waaw fa bokk ci pénc mi kon maladie yi dal pénc mi mun na leen xam waaw lu am solo la sunu borom ne min anfusikum waaw sunu borom ne min anfusikum ci yéen la bokk di allahu akbar sunu boroom tànne ko ci sunu biir yónni ko ci sunu biir waaw mu xam nu hmm, waaw xam na nu de ndax ci sunu biir la nekk mu tànne ko ci sunu biir yónni ko ci sunu biir te xam googu munu xam fi ne kiy wax ci pénc mi sunu kalaas gi te xamul pénc mi léeg-léeg pénc mi wax loo ko au lieu mu wax ak pénc mi pénc mee koy waxloo ne ko waxal nu lii walla mu dégg pénc mi ñépp wax mu wax ca loolu ku xam sam pénc doo defee noonu ki ki ki mere docteur bi ci kaw lu tax waxe woon nii waaw xam nga waare ma nii moom euh, sottiwut docteur bi ci ñun la bokk dafa xam sunuy maladie sunuy feebar la xam ñépp lay faj kum waaw rasulun min anfusikum waaw ci ci ci yéen la bokk moo tax ya maanaam kii def daawa di woo nit ñi bëgg leen a jëme ci lu gën liñ nekk walla lu tane liñ nekk su fekkee lañ nekk du njub mu bëgg leen a jële ca loolu yóbbu leen ci njub bu jàngee min anfusikum day xam ne ab rëbb bu day niru rab wa day niru àll ba laaj ko militaire yeeg seen tën yi mbokk yi bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 def 88 ñaar yoon daal di bës 2 nu ànd suñ jotaay bi nga xam ne altine talaata lay am jataay bi huit lay tàmbali dix heures lay jeex ñu mën cee woote laajante ci suuf suñu yi diine ak yu ci aju su fekkee jekku nañ ko ak seen fa rekk te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yoru seeni kayit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi tubaab firim fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñ suñu technicien bii nga xam ne mooy sànni wax jaww ji ba waa daaru xuddoos mbooro mën koo dégg ak suñu sponsor bii nga xam ne mooy c 3 la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mu yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu